ngeen jot a jot moo ñu jox kàddu gi Serigne Assane Diouf Walfadjri ci turu hommage yi nii def yëpp waaye ñoo ngi jot léegi appelu maître Khassim Touré yónnee na fi délégation bu rëy boo xam ne El Hadj Pape Diop imam moo ko jiite incha allah ci dil si sëñ Khassim bu fi nekkoon kenn du fi jiitu. waaye incha allah daan ci del si baax Assane jërëjëf bismillahi rahmani rahim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. kàddu yu tedd yooyu maa ngi koy nuyoo ñi nekk ci saal bi waaye itam di ko nuyoo ñi nekk ci biir senegaal waaye itam di ko nuyoo ña nekk ca bitim réew te ànd ak ñun kàddu yooyu nag yaakaar naa ne bu ma ko jëlee teg ko ci loxoy kilifa gi fi nekk di sëriñ Modou Kara Mbacké Noreyni bu ma ko tegee ci loxoom rek képp ku ci war a jot dina ko jot loolu daf may dal di noppal ci ñeneen ñi bu ko defee wolof dafay faral di wax ne xel dal na waaye tey damay wax ne xel daj na ndax ñi fi dajaloo jóge ci kër diine yépp li leen fi dajale nekk benn mbir ki leen fi dajale nekk kenn loolu ku ko ku ci fekk ku ko fekkee mën nga wax ne xel dafa daj tey bu ko defee ci turu président directeur général bu Walfajri di Serigne Cheikh ñas laa leen di nuyoo di leen jottale ngërëmam ak cantam ak dalal seen xel ne lépp lu pàppam defoon benn moom fas na yéene def ko fukk ba fa mu fa mu yem kon mu ngi jottale nuyoom ak mboolem nuyoo famille Niassène bi di ko teg ci loxoy kilifa yi waaye itam maa ngi fi taxawee ci beneen tànk muy ñi nga xam ne ñoom lañu sargale bés bi te génn àdduna seen njaboot teew ci bërëb bi ci seen tur yépp ñu ngi gërëm ngërëm lu amul àpp kii di sëriñ Bass Khadim Awa Ba ndax dara boo ko defee ren mu jig la nga defoon ko daaw mu jig la nga defoon ko daaw jékk mu jig la am na loo àndal te loolu moo ko dal waaye ku ànd ak Serigne Touba Serigne Touba tànku kanam la am waaye amul tànku ginnaaw naka noonu itam njobootu Serigne Touba tànku kanam la am waaye amuñu tànku ginnaaw te mooy njobootu lislaam sax kon ci turu ñooñu ñëpp ñu ngi gërëm Serigne Bass Adim Awa Ba di ko encouragé ci li nga xam ne taxawee na ko ci biir Sénégal te mu yàgg lool di ko taxawee ndax service la boo xam ne njariñ li waxuma Sénégal rek waaye àdduna bi yëpp mën na ca jage rawatina nag ki ñu ko tuddee ren di borom daaru borom daaru mi nga xam ne mën nañ ko tuddee semboolu sàmm kóllëre ci yoonu murit ndax ni mu wootoo maam borom Touba ci bi nga xamante ne dem na ca géej ga loolu dina sax di continuer di nekk royukaay ci képp koo xam ne kilifa dëddu na bàyyi la ginnaaw bu ko defee kàddu yi jarul guddal ndax li fi jot jot a jib ci kàddu li ñu bëggoon wax yépp wax nañu ko te am na yeneen kilifa yoo xam ne war nañu ñëw sànni seen kàddu mbooloo mi mën koo jariñoo bu ko defee bu ma tënkee rek damay ne sant nañu ñëpp gërëm ñépp ci turu mbooleem ñi nga xam ne euh, ñoom lañu sargalee bés bi te ñu génn àdduna ci turu seen njaboot ñoom ñépp ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax déwénati yàlla nañ ko fekkee ay déwéni déwén benn bu ci nekk gën sa moroom ànd ak barke ak xéewal ak euh, teraanga lépp lu ñuy ragal ci ay tolof tolof ak i jàngoro yi ñuy wax yàlla na ci barke jotaay bii yàlla fànq ko waxuma rek ci Sénégal waaye ci àdduna bi yëpp am na ko mën na ko sañ na ko yàlla na ko def wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu Cheikh bala ngaa jël kàddu rek ñu fàttali ni Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaynde Fatma ministre conseiller moo fi teewal monsieur Macky sàll président de la République kon nag ñu fàttali rek ni ne sëñ Bassirou nee président woo ko ci suba wax ma Cheikh Abdou ñëw ne ma Cheikh Abdou Lahad Gaynde ma mooy ñëw ndax loolu xew ci réew mi nee na loolu xew ci réew mi tax kaa bi kaa yi di gën di yëkkatiku nee na yi di gën di yëkkatiku moo tax ñu am réunion de crise noo tax moom am réunion de crise à la présidence ministre yëpp ministre yëpp gouvernement bi yëpp gouvernement bi yëpp institution yëpp. institution yëpp. ña nga présidence. ña nga présidence. président Nima. président Nima. Cheikh Abdou. Cheikh Abdou Lahad Gaynde Fatma. sa xarita. sa xarita. sa mbokka. sa mbokka. du ma fi yebal keneen. du ma fi yebal keneen. moom laa yebal moom laa yebal. Nima boo bëggee it. Nima boo bëggee. ministre yi waroon na teew. ministre yi waroon na teew. ma jël ci ñu ñëw. ma jël ci ñu ñëw. ma ne ko déedéet. jéggal naa la ko ci xol naa la ko nag ci xol bu sedd guy. Cheikh Abdou bu ñëwee. Cheikh Abdou bu ñëwee. mel na ni ñëpp ñëw na mel na ni ñëpp na jërëjëf. waaw Ibra nga leeral sëriñ bas ku ne xam na sa diggante ak président du tey waaye sëriñ bas mi ngi sant bu baax ñi ko yàlla booleel soxna Ndey pharmacie soxo indi na ay teraanga ci bis bi lim nekk nekk na ci jàpp na ci bis bi nee na di sant bu baax soxna Astou gaawaat Mbacké. mum sëriñ Cheikh Say mum sëriñ Souhaïbou mum xaadimu rasul nee na jóge na Touba ànd ak forte délégation indi ay teraanga ci bis bi indi fi jëf ju rëy mi ngi koy sant di ko gërëm di ko seeral ñi mu àndal waaye nee na di sant soxna Asiyatu mum Cheikh Moustapha mum sëriñ Massamba Lazane ba nee na lii mu sol rek firnde la soxna Asiyatu ko muy brodé bu cher autrice bu cher nee na moo ko ko jëndal jox ko ko ni ko yaa koy sol maa la koy décorer kon nee na mi ngi sant soxna Asiyatu boole ko jëf ci teraangay yu rëy nii la ma ko sëriñ Basiiru waxee nii laa ko waxe nee na mi ngi sant bu baax délégation soxna Baali Muntaxa soxna Ndey Mbàkke moom sëriñ Maam Moor Masamba soxna mam Faati moom sëriñ Cheikh Astou Fall soxna Amaama Ba soxna Rose Diaw soxna yi nag ku ko gisul dana xam ni ma nga poroxaan loolu moo tax ngat ne délégation ministre Dame Diop sëtub sëriñ Balla Coro Mara Diop moo ko jiitee di conseiller ak conseil yi mu àndal yëpp waaye ñu ngi rafetlu teewaayu sëñ Moustapha Alaaji Baara sëñ Basan koy sant bokk na ci ñi fi jiitu nee na day magam di xaritam soxna Oumy Fallou moom itam ñëw na fi soxna Oumy Touba moom sëñ Fallou soxna Yacine Doucouré di cheikhu cheikh na cheikh Sadbu moom itam mi ngi fi ànd ak soxna Oumy Gueye Idrissa di jigéenam njabootu Alaaji Idrissa gay kenn desul gis naa njabootam gu góor ak gu jigéen ñépp ñëw xaadim ba di rakki sëriñ Bas di xaritam di léppam waaye mu mel ni tamit soxna May moom Serigne Modou Fati Xari doy lim délégation soxna Bali ku xam seen diggante su la neexee nga ni soxna May mën na fee teewal boppam ndax digganteem ak Serigne Bas waaye mën na fee teewal soxna Bali ndax digganteem ak soxna Bali dara doxu ci. sama waajur ne waajuram. soxna Fatou Jonn soxna Fatou Jonn di waajuram wu jigéen. nga xam ni sëriñ Touba Jàllee mi nga xam ni moo ñu dimbali. ak Serigne Baara ak Cheikh Mouhamadou Lamine Baara mim ñu bo mim ñu boolee ñu jaare ci. bu ñu mënee taxaw fii tey. bu ñu mënee taxaw fii tey. jëmmam la jëmmam la ñu ngi koy sant di ko ñaanal yàlla ñu ngi koy sant di ko ñaanal yàlla mu fekke njariñu ay sëtam mu fekke njariñu ay sëtam ci barke sëñ Touba sëriñ Ousmane moom sëriñ Cheikh Gaynde Fatma moo fi teewal sëriñ Ahmadou Mokhtar ñu ngi koy sant di ko gërëm sëriñ Cheikh Mahmadan Jobbe moo fi teewal mag ci sëti sëriñ Massamba yi di porte parole kër sëriñ Massamba di ku baax waaye sëriñ Cheikh Wilaya di tawub sëriñ Dame Atta moom itam mi ngi ci jotaay bi sëriñ Ismaïla moom sëriñ Cheikh Gaynde Fatma mi ngi ci jotaay bi mbooleem njaboot sëñ Xaadim ba gu jigéen gépp ak ku góor gépp ñu ngi ànd ak sëriñ Bas maa ngi gis soxna Soda ak ñu bari macha allah ñoom ñëpp ñu ngi ànd ak sëriñ Basiru bis bii sëriñ Modou Baara moo fi teewal sëriñ Saliou sama mag moo fi teewal ab xalifaam di xaritam di léppam di sëriñ Saliou dafa nekk Mauritanie dafa nekk Mauritanie moo tax moo tax ñëwul ñëwul yabal sëriñ Modou Baara ak sëriñ Abou yabal sëriñ Modou Baara ak sëriñ Ahmed Pape Mansour Mbaye ñu déglu sëriñ Pape Mansour alaaji Mansour Mbaye suñu bàyyi alaaji Ablaye mbay kii di alaaji Mansour dend ak Serigne loo Lo Gaydel suñu xarit kenn mënu ko fay dañ koy sant di ko gërëm ndax moom lu baax rek lay wax mu musuma woo këram ba mu ñëw mu ni ma li ma may li ma am mooy waxulu li naas xusna musuma wax lu ñaaw lu baax rek lay wax loolu nag ku ko def rek da nga am jàmm fii danga am jàmm fëla kon ñu déglu Pape Mansour alaaji Ablaye euh, ñu déglu Pape suur waaye di rafetlu teewaayu borom Daarul Muxti Serigne Bass Abdou Khoudoss généralu Cheikh Ahmadou Bamba nag bis bi jàpp na ci jàppin woo xam ne lu yéeme la di Serigne